soppee bu la defarul demal nga seeti keneen ak ma ko maa ko wax bi muy ci yow ay dixième position laa ci artiste ak chef bu xel sëñ Fallou Choy maag moom ñoo bokk sëñ màggal Touba jox sëñ Fallou Choy bu ni ma demal nga ànd ak Cheikh Mansour Diouf boobu ba léegi ma def lu mu yëgul du ma wax lu ma yëgul lu bala maa dara tiim moom lay yow mun ma demal su ne ma bul demal ko parce que sëñ ma jërëjëf Diouf yow rusloo wuñ gàcceloo gàcce yàlla li may wax ñi fi ñi ñëpp xam nañ ko man fi génn ko fi ba muy nekk laa fi ñëw fii kenn jiituwu ma fii noonu Moustapha Seck ak sama bàyyi dalal la te mooy fii ko soxor nekk fii ndax sëriñ su bëri di nga dem bu ñu jëmee ñu lay bàyyi sa diggante ak sëriñ waaye damaa ñëw ngeen ubbi ma yàqal ba kii di moo njaay chef bi bi ma ñëwee léegi matagul semaine ba ma ñëwee léegi si yàlla moo bëgg di wax lu baax maa ngi ci aar bi waaye dugg yi mooy ji amaguma ci alal amaguma ci dara te su ma sañoon man sa soppe laa sa taalibe laa fu ma taxaw lu rek weer la ci teg ñu jël ma benn série te bañ may jël yu su mooy njàkk seetal ma su mbay ma jàkk ñu waxaay ak man fay man ay millions yu bari muy ñëw di sëriñ bi woo nañ ma ne waaye bala maa signé contrat nga d'accord ci nga ne ma xoolal contrat bi looy dugg na wax sëriñ day am ginnaaw sëriñ day jàppale taalibe bi ndax contrat bu ne xam ne dafa sew ndax tubaab yaa ci nekk boo jàng mën a ko xam mën nañoo dem ba ci biir agar bi ay exposé buri lu ñu exploité la semua pakai fekk yau yang tak kor accord sendiri loolu sëñ menyumbang ma pun mah xool mu ñëw man ko mun ma defal keroog bu sama aku lagi nyuruh ñëw ni ko sëñ bi kat bala maa tabalaa tiim itu ñëw tàllal sama loxo dah, ya dafa for dah ya ndax kan, dah hidup di pas dah fay ay dia dia ada di eh, sini ci bu doon jàkkaam jumaa rek dafa naa Sénégal la ëppee yaakaar boobu nag ma am ci yow wax la ko nga ma Mansour demal dafa naa kenn mënu ma cee siiw ba kii dem Sénégal man rek ñu jël ci artiste sëñ bi barke Seydina Muhammad yow barke Seydina Muhammad di tax nit ñi di daanal di tax nit ñi di di aal di tax nit ñi di yuuxu di tax nit ñi di bilang Sample, quand la kan langue entend vos sacrés. Cheikh Massoudou, il y a un corps. Siapa Massoudou, il y a Bach. Cheikh Massoudou, il y a Dibli, c'est Kalimé. Ni Nidan. Puis il finit dans le ya, monde, c'est Kalimé. Quelqu'un qui dit dans les Afghans, qui va ya, dans les dons Adam. L'autre qui veut les dons Adam. Nid da di jàppale di man de may naa ko buñ la ko tuuma laa ko tuuma yaa ma gën a lu ma mën jàpp parce que sëñ bi naa ma man danaa wax tuut rek ku tànnee Pape Souleymane bi nga xam ne moom moo leen wane jërëjëf kontaan naa trop.